jën seen na dara amul na dawlin dañuy jaay ba weer dee sax duñu am luñu fee la duñu yëpp daal métti na kooku mooy maire Niania ba mu nekk ak léegi am na vingt ans booba ak léegi benn avancement bi fii la fi nekk vingt am na ko loolu maa koy seere parce que maa ngi moom noo ci marché la Ali waaw waaw ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf tey tey lan ngeen doon xaar ci ñi yore réew mi pour ñu dimbali leen yow na génn nag duñu génn na génn na génn na génn na génn na génn ñëwal tuuti ñëwal tuuti ñëwal tuuti génn tuuti fii laa defoon ma pour tudd ma dee ndox leen faat ma may góorgóorlu di liggéey doo baa ngi kenn fekk ñu ñëw photocopie suñu carte d'identité dem maa ngi nii lamb lañ lay taal ñu ne dañuy wutal courant di taal jël suñu carte d'identité photocopie jël suñu lépp d'accord yow dara ba léegi yow yow en tant que ndaw léegi lan ngeen di xaar ci euh, nguur gi concrètement par rapport seen jàppale ñu ndax sonn nañu jàppale ñëpp jàppale xale yu góor yi jàppale xale yu jigéen ñi bëgg nañoo liggéey waaye yoruñu xaas yoruñu lu ñu liggéey mm-hmm. mu jàppale ñu dañuy xëy 6 heures du matin dañuy yeewu duñu nelaw sax yéen doo liggéey ba ngoon jot mm-hmm. waaw ñun bëgg nañ ku ñu jàppale comme yow na li ñuy li ngay def ci askan wi gis nañ ñi ngay jàppale nit ñi bu baax yaa ngi jàppale nit ñi yal na la yàlla yokk ci waaw alors lan la da ngeen amatul client bareetul ba feebar client yi bëree ci la problème bi depuis feebar ba mu commencé ba léegi client yi bëree marché aussi jënd dafa seer lépp dafa seer alors bi Covid bi commencé ak léegi est-ce que ñu ngi leen jàppale nañ leen benn yoon ñun kenn jàppale wuñu dara ñun ñooy ñu ñooy déglu ñun bopp kenn jàppale wuñu si dara c'est bien. tey jii ñu gis ni Sénégal. taxaw ñu wax ak moom. ñaar ma ci juróom. waaw léegi nii rek. masque juróom masque juróom. ana Ali. Ali. ñun ñi dañoo wax bi ñu jógee. ñëw fi ku ne dañuy kenn ku ne 10 000 francs lay doon bi ñu commencé dëgg la man mii bi may nekkee grand 10 000 francs 10 000 francs laa yor. dix mille franc laa ma nekkee Padoa. foo dëkkoon foo dëkk foo jógee. Touba nga jógee. dix mille franc nga yoroon bi nga ñëwee. bi di liggéey. bi ngay liggéey dajale naa di liggéey di liggéey di liggéey ba yàlla def ma dem Padoa doon fa liggéey côté ma père ma continué di am la di jaay ay dàll am na ñoo xam ne si ñoom ñu ngi fi ñoo xam ne fa la ñu ñëw ñu ngi fi di jaay ay dàll di jaay ay dàll ba xamaat yàlla dimbali ma fi mu toll nii ma continué di liggéey ba dama doon defoon naa bay créé ci liggéey bi ci dàll yi rek ci waaw daa baax ak ci téléphone di kër moo xam ne dama leen di jël di leen liggéey di leen di leen di leen fay ñu ngi liggéey. alors yow yow 10 euh, 000 francs nga commencé. sa liggéey yàqu nga tàmbaliwaat di liggéeya ba tey yàlla mu ngi ñëw yaa ngi am jafe-jafe mais est-ce que yow état ngay xaar pour liggéey man xaaruma état ci dara soxlawu lu ma ko dara man sama bopp man bu ma yàlla million wala deux millions mën naa ko mën naa ko def vingt millions ndax place ba la ngay seen nane te yu ñu yàqee sama yàq bu ñu demoon naa sax bay am oto day jënd ay oto sax ñu calendrier alors xam nga xam nga lu tax ma ne damay génn jëm si ci yéen dama ne damay génn jëm si ci yéen parce que damay bañ ñuy nax réew mi dama bëgg wax ñu xam ne gone yi am jom yi ci réew mi xaaruñu ku leen finance soxlawuñ ko sax soxlawuñ ko moo tax ma sol suma dàll jëm si ci yéen pour que ngeen wax ak presse bi ñu xam ne yéen xaaru leen ku leen dimbali waaye li ngeen di xaar mm-hmm. mooy ku leen may jàmm ngeen mën a liggéey. c'est ça ñun soxlaaluñu état dara financement mën na koo téye ñun ñu mel ni yow yow lañ soxla yow lañ. teg maanaam maanaam maanaam environnement des affaires cest dire euh, li leen seen conditions yi ngeen war a mën a nekk pour liggéey seen liggéey jaar yoon. lool aussi il faut que taxawaayu nguur gi aussi feeñ. pare ñun ambulant wala dara. gars yi boolewul ci dara. te mhm. conteneur yu wàcc ci réew mi fii. Mhm. ambulant maa ni ñoo koy jënd. jaayaat ko te wër na rasulaay amul benn ambulance doo leen gis ñu invité leen ci rajo mm-hmm. journaliste du ñëw ci ñoom te li ma leen ma lu wàcc ay conteneur ambulant maan yi ñoom ñoo koy jënd di ko jaayaat te buñ jógee ambulant maan yooyu duñ amu amuñ sax baat ci réew mi ñu déguerpissement yi liñ fi dund li ma ci ñàkk ëpp na bu doon wax ay 10 millions ndax man ñàkk naa samay bagage yoo ne ëpp na 3 millions ba tey gisuma ko ñi doon déguerpi ñoo koy sàcc ay téléphone démb dégg nañ njiitu réew mi wax ne du abandonné jeunesse sénégalaise bi yéen ban jàngat Macky Sall laa wax Macky Sall billaay wallaay di wax moom moom ñi ko wër ak li ne ci terrain bi man li may dund mhm. amul Macky Sall amul ku ko jox bopp ci senis Macky Sall nit ñi li jëluñu li ma lay wax nii ñi ma ñan ci terrain bi laa nekk dëkk bi di fi li xew ci dëkk bi ak li li muy yëg bokkul maanaam am na lu bari luñ koy nëbb am lu bari luñ koy nëbb Macky Sall moom lu lu lu mën a defal lu lu mën a defal Sénégal merci merci yàlla defal taw bi. liggéey bi yàlla ko yàlla jàppale. barke Sëñ Tuubaa amiin amiin ñu ñaan ko suñu jaas ñu ñu faral ko jërëjëf ak waaw jërëjëf jërëjëf na ngeen jëf na yow la yu rëy jërëjëf billahi wallahi taalibe Sëñ Tuubaa la ngay def da ngeen jëf da ngeen jëf da ngeen jëf da ngeen jëf ci ginnaaw rek pour ragal yaa fi ne Bougane lañ wax. kan laa ciy waxal. waaw ñu fàttali ne ñu ngi fii ci Colobane am nañu wala ko koy néegu di ànd ceeg nga xam ne Lan gel bir tane. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Terusnya. Terusnya. Terusnya, bukan. Bukan.

barke Cheikh Ahmadou Bamba laaju ma la xaalis ma liggéey moom laa la jàppe moom la Cheikh Ahmadou Bamba avance bu baax ay ndax mbaay laa ko jàppe pour man yow yow yow yaa ngi nii di jaay tey bu journée neexee ñaata ngay am. bu journée neex ba neex au moins tam ñu aar ko borom te ci 4 millions yi ñu liggéey waaye arrangé yore sa kër. yow gis nga yow teg sama poids su ma la ko joxee non garaawul danaa fay rek. yàlla na yàlla jox ko mos a bàtt yàlla na la ko yàlla jox ko mos a bàtt yàlla na la yàlla jox ko mos a bàtt waaw jël dàll ko On est ensemble. Arrière leen, arrière leen, arrière leen. waaw waaw waaw comme ça boobu. waaw jërëjëf comme ça boobu. salaamaaleykum day def ay te ay jëf mon frère avancez leen avancez leen salaamaaleykum day def jëm moom. ana madame naam. jaajëf jaajëf. ñu dem ñu

fi ñuy jaayee daal yi fan la. ñu jëm moom lay woo. moom lay woo moom lay woo ànd ak yéen la presse pour que ngeen mën a relayer seen émission relayer seen émission am nañu benn tailleur fii ak sama yaay Bougane merci. nit ñi mënuñoo liggéey ndax étranger yi ñu mais ñun mënuñu ko ñëw pourquoi pas ñun état bu Sénégal mënuñu doole ñu liggéey mais tey loolu moo tax sama métier xool ma bàyyi ko fa ñëw fii ci marché bi jaay booy séeréer lañu ci ginnaaw boo sama local bi lañ war a dooleel ndax tailleur yi mën a am xaalis mais dama ciy dem pays yi. booy séeréer lañu ci ginnaaw pays yi ñoo gën a risque. may la téeméer boo xam ne tey boo ko mayee téeméer bu njëkk wala France bu dugal ci marché yi wala nga dem may daal marché yi déedéet moom dina sax dara financement bu président di wax financement nekkul da ngay jël xaalis su ko jox ay nit ñun engagement bu la ñu su ko dañu bëgg xaaral xaaral ba ñuy daaneel ñun su ñu demee dara réew mi day avancé ñun ñoo war a tabax ay immeuble yu rafet dëkk yu koy dëkk yi ngay gis ñu rafet yëpp seen doomu réew ñoo yëg seen xaalis bopp tabax ay kër yu rafet dëkk mais état tabaxuñu kenn kër ñun ñooy am xaalis am mais doon ay milliardaire tabax ay kër yu rafet Sénégal mën a nice ku ñëw gis Sénégal Sénégal rafet mais du question état mooy tabax fii ay kër wala tabaxal diw kër non non du affaire du foofu ñun soxlawuñu ku ñuy yëkkati ay mille francs bugaat nii joxuñu dërëm te ñun nag ñuy defal loo xam ñun mënuñu ko fay suñu kàddu am na foo xam ne ñun Sénégal yi jeunes yi dañuy sonn dana la xamal ne Sénégal jeunes yi dañoo ragal wala jeunes yi dañoo dof la jànguñ ñun ñoo ko gën a xam ne donc lépp bugaan bi nga ko woowuñu ni ñun ñoo ñun lay envoyé di la ñaanal bu baax la tudd maa ngi dëkk Nioro amal jàmm. d'accord waaw ñëwoo sa ñëwoo sa gannaaw. waaw amal jàmm. waaw. yow bu am fële comme fayda am nga fula am nga fayda bu kenn bàyyi jot naa solo bàyyi fan tool koloban jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum na ngeen def jaajëf jaajëf Macha Allah. Jërëjëf.

président duggoon nga fi élection duggaat. waaw duggaat jërëjëf. ayca. moytu leen moytu leen moytu leen nag. arrêté leen arrêté leen si ginnaaw. arrêté leen si ginnaaw. dañ ñoo gàddaayaloo loolu lañ may leen leen ñu jàll waaw. dañoo. dañoo gàddaayaloo amatuñ yaakaar si réew moo tax ñu dem tey dugg tey boo demee tey Espagne jeunesse yëpp am na ñu xamante ne ñu ngi si jardin yi liggéeyu def bon avant avant nag li may njëkk wax mooy euh, les micros léegi comme ni ñu ko gisee noonu cag-cag lay waxal waaw ñu ne cag-cag yi waaw avant li may njëkk a présenté maa ngi tudd Yaya Diouga Wane euh, des livreurs coursiers professionnels du Sénégal ayca waaw. waaw maa ngi tudd Yaya Yaya président conseiller des livreurs professionnels du Sénégal Yaya Ibra Wane. voilà bon ñun en général nag nit ñi dañuy woowee càq-càq mais duñu ay càq-càq. càq-càq dafa am ku moom. Bon, il fait partie de nous. C'est vrai que livraison lay un gars qui qu'on respecte parce que dafay jox plein de jeunes aussi tam leur chance. voilà voilà mais ñun ñun nous sommes des livreurs coursiers. parce que am na ñoo xam ne dañuy def course le matin maanaam ay courrier dañuy yóbbu le soir dañuy nekk des livreurs. d'accord yan jafe-jafe ngeen di jànkuwanteel. bon jafe-jafe bu ñuy gën a jànkuwanteel mooy mooy en fait bon les les scooters sans papier mooy maanaam li ñuy sàcc suñuy scooters. en général policiers yi dañuy jàpp trop dañuy jàpp mais au fait duñu immobiliser leen moto dañuy bàyyiwaat booy yi ñu dem ñun ñun parce que ñun les livreurs ñun moto yu ñuy yor yëpp dafay am kayit day am kayit complet donc amul livreur professionnel boo xamante ne mi ngi daw au Sénégal te yorul euh, kayit complet donc ñun du ñu sàccee suñu moto yeneen booy yu ñuy wax peut-être des petits ñoom en général dañuy yor des scooters yoo xamante ne amul kayit. policiers yi bu ñu leen jàppee du ñu immobiliser moto yi. d'accord dañu leen di bàyyiwaat ñu dem dañuy dañ leen di fayloo après ñu bàyyiwaat leen ñu dem donc du coup ñu ñooy nekk victime ñooy nekk victime de tout le monde. tey lan ngeen di xaar ci visite bu mel ni tey lii c'est une première d'abord waaw c'est une première bon ñu gis koo xamante ne mi ngi annoncé wu pour ñun ñu ñëw envers lui bon loolu moo tax sax ñun ñii ñu ñëw le matin envers lui parce que moom il l'a annoncé à télé ñu gis ko. loolu moo tax ñu am audace su ñëw présenté wu parce que amul kenn ku ñëw ci ñun di présenté wu pour ñu ñëw ci ñoom. y en a pas quoi. alors aujourd'hui yéen ñiy def càq-càq ñiy def livraison. Mhm. en général lan ngeen di xaar pour lu gën a yombalal seen liggéey. waa li ñuy xaar lu gën a lu ñuy mën a yombalal suñu liggéey mooy en fait ñun on veut se structurer quoi. vraiment dañu bëgg yokk ay structure déjà on a commencé dans certains d'entre nous am na ci ñoo xamante ni ñu wu parce que entreprise yu ñuy liggéey c'est vrai que dañu fay doon liggéey parce que ñun ñëpp en général ci entreprise dañu jógee de livraison mais entreprise yi ils ne pay pas duñ ñu fay duñ ñu fay en fait euh, li ñuy liggéey. Euh, moo tax voilà moo tax ñun ñu génn ñu génn ñu génn ñun on a créé nos trucs pour commencer di liggéey quoi. entreprise yi da ngay dem di liggéey tu le casses quatre casses la tête du matin au soir te ils n'arrivent même pas mais c' grave. ça veut dire quoi ça veut dire quoi li ñu leen di fay. du ñuy fay ay cinquante ay soixante mille francs par mois c'est des ça non du coup yow boo génnee sax nga jaayante ko tu vas avoir plus donc du coup loolu moo tax ñun ñu génn. ñu gën certains d' entre nous ñu créé suñuy structure ñun aussi ku ci nekk ci ñun comme marché bi say large ku ci nekk ci ñun di liggéey normalement c' est juste ça. démb président wootoon na fële jam ñaajo euh, euh, a ngi i. man personnellement dem naa DER dem naa DER présenté woon naa fa plusieurs fois. bon première fois bi bu ma ñëwee dañ man ne damay dugg si seen application boobu mais application man j'arrive même pas à rentrer dedans c'est ce qui est grave beaucoup d'entre nous ñu ngi ciy essayer mais mënuñu dugg dem naa foofu pour ci j'arrive pas à voir le bu gérer affaire yi dem naa fa démb rek. mais nee nañ ma nekk fa tey lay nag la fay nekk bon tey nag damaguma fa mais naa fa dellu naa bu fekkente ne am na on va tout faire pour s'inscrire dedans pour gars yi financer ñu pour gars mun ñu encadrer aussi parce que instant yi moom vraiment toll nañ ci Sénégal boo xamante ne tout le monde doit évoluer ñun on veut évoluer on veut créer autre chose xam nga dañ bëgg a bokk ci nit ñi ni ñuy wax quoi c' est ça. c' bi nga xamante ne amoon na jam ñaajo. non non amuñu benn nouvelle sur ça amuñu benn information. donc donc donc conseil conseil interministériel bi pour l' emploi yéen kenn boolewu leen. non est ce def euh, livraison càq càq et cetera. bon à peu près actuellement ñun suñu association am actuellement cinquante membres yoo xamante ne ils sont y en a nag ñoo xamante ne duggaguñ xam nga ñooñu mënuñ leen recenser parce que xamuñu leen exactement mais ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw ci ñun buñ ñëwee parce que ñun boo ñëwee adhésion bi dañ lay jox sax carte de santé loolu ñu ñoo ko defal suñu bopp dañoo am carnet de santé boo xamante ne pour mutuelle de santé nga xamante ne bu ñu gaañoo sax dinañ mën a fayu sans mën a fay lu cher loolu ñun ñoo ko créer suñu bopp ñun ñoo ko defal suñu bopp lépp lu fi ne actuellement ci association bi ñun ñoo koy defal suñu bopp. amul dara loo xamante ne état mu ñuy accompagner ou quelque chose. ok merci rappelez rappelez tur bi. Yaya Ibra Wane. président des livreurs coursiers professionnels du Sénégal. merci beaucoup merci. waaw mën naa ne. mooy oto police yi dañuy dàq léegi moo si mujj gars yi yëpp la ñu dàq léegi ma nga ne police baa nga ne yëpp la ñu dàq. dina sonal léegi nii la ñu dàq. dama la doon suñuy dàq déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen rek. Eh, oh. dañuy déglu. waaw dañuy déglu dañuy déglu. Euh, ñun dañu ñëw dañu ñëw pour déglu leen pour xam lan mooy seen ay problème yéen raxaskatu oto yi parce que ci réew mi ngeen bokk ay ndaw ngeen da ngeen bëgg teral seeni waajur daan seen doole dong moo leen tax a ñun dañu ñëw fii comme yéen dangeen ngeen di raxas ay oto ñu bëgg leen a dégg xam lan moo Sénégal Modou foo dëkk réew Maaw Modou Tine réew Maaw la jóge da ngay raxas fii oto d'accord lan mooy seen problème yéen ndaw ñi. waaw sëñ bi nii nañ la. xëy la soxna si. bi naka la. man Mor laa euh, gisee euh, kii di président Bougane ñëw tey wàcc ci euh, terrain bi ngir waxtaan ak jeunesse bi. waaw ko rafetlu rek ñu kontaan rek ndax daanaka ay ndaw moom bu ñu nee fenn di fa yëngatu di wut lu ñu am. daanaka kilifa bu toll nii daal di fay wàcc moom daanaka bu ñu yeboo ñu seen xel day daal di daal ndax tey jii lu mu néew néew bu fi ñëwee itam dina am yoo xamante ni dinañu ko wax ñu mën koo dégg. même bu ñu wutalee loo xam ne mën nañoo gis lu gën li ni ne itam la. waaw ah, waaw daanaka paas bi taxu koo seer doonu te daanaka ay borom famille la ñu waaw. daanaka boo fi gis ku ne rek mu ngeeg njabootam. waaw te kenn ku ne njaboot moo la sonal boo jógee di daw di dem. sa njaboot tax ma jóg sama jëm ak sama jëm na du ma gën sama kër lu ma lekk ak lu naan tawul te itam da ngay xam ne am na ñoo bàyyi euh, euh, ci li nga xamante ni moom a jël ko ci yéen euh, na loolu. daanaka kontaan rek ndax nit ki moom lu muy yëngu lu ni rek bu gisee lu ko ëpp ca loola lay nekk. tey jii mën nañ ne kalandoo ne bu ñu amoon biis gënal nañu bu ñu amoon camion gënal nañu waaw kon président bu defee loolu itam daanaka kontaante la rek ndax sën yi ay sënam tey jii ñoom ñoo ñu war a jàpp ndax tey jii ñun kalandoo mii ñaanu ne yàlla ñu ci ñu ngi sëni pièce sëni poos ñu gisee leneen ci dem ci daal daal doon na loo xam ni daal kontaante la rek lay doon. d'accord est ngeen ni que li mu teg noonu ngeen ci mën a jot. Ah, ndax wolof njaay naa xalam moom dajul suuf seen yi moom ndax tey jii bu ma jooyee sama soxla keneen tamit côté am di jooy soxlaam mais nag dañuy ñaan yàlla itam bu fekkee sunu wërsëg ne ci itam xëj na ñu jote ci du sunu wërsëg itam xëj na sunu morom jote ci ci sunu morom jote itam xëj na bu ci sunu wërsëg ne itam mën naa li wolof njaay naa loxoy kàjjoor weesuloo itam kon mën cee jote ndax wolof njaay nee na xalam moom tajul suuf est-ce que est-ce que euh, jumtuwaay yu teg yëpp pour euh, ndaw ñi est que yéen ñi gis ah waaw gis sunu bopp rek tuuti tuuti nii rek mais cent pour cent daal ñu ngi ciy gis tuuti tuuti rek waaw mais daal itam daal comme li ma la wax rek ñuy defa ndànk ndànk rek ba saa bu yàlla dogalee ñu war see jote ñuy jote ci loolu la rek waaw mën na ko loolu la noo tudd. Xaadim. Euh, ñu fekk la fii nii euh, baal ñu wax ñu rek euh, lan ngay liggéey fii. ah de métti rek. yow lan ngay liggéey fii ba pare. raxas oto la liggéey. raxas oto raxas nan lay demee. raxas oto bi dañuy si télé bi di taral lay dem. dañuy gis ni que yéen instant ngeen fii nii est ce raxas oto bi demee na loolu parce que tey dañuy njëkkante oto yeeg yooyu. waaw gis nga mooy loolu doo toogee doo liggéey dañuy jëgante boole ci policier yi di nu dax nuy daw ak loolu mooy loolu daal. mais est tey jii euh, yaakaar nga ni tey euh, démb président gis ko discours euh, nga xamante loolu. dégg nga président moom dafay ko mu ne dafay jàppale jeunesse bi jàppale leen ci emploi ak yi ni mel naka nga gisee loolu. ah loolu de lu baax la parce que sonn na dañuy daw guddi di bi loolu daal dimbali dimbali ñu daal baax na si trop. ñu gis ni euh, président Bougane wàcc si le terrain tey euh, ngir euh, saafante ak ndaw yi xool li nga xamante ni moom moo leen moo leen moo métti ak naka li nga xamante ni tamit loolu lañ manqué tey jii noo gisee visite bi président Bougane def a ah, li mu def ni lu baax la ñu ko ciy félicité nag di ko ñaanal yàlla yàggal bàyyi leen

Saliou. waaw. léegi nag liggéey gaa yi lan mooy seen jafe-jafe. tourné papa na jaw jàkkaarloo xool caméra jafe-jafe yi moom mooy. antenne bi antenne bi. daanaka dox bu baax a baax a baax mais léegi moom wax dëgg yàlla dafa rëggante ndax feebar feebar xamul moo tax waaw feebar corona moo yàq bu bëree bëri bëri yàlla baax na sax yàlla xam ne lépp day ñëwaat naar baax na tey boo doon xayma wàññeeku gëm sa bopp. tur bi Mbaye Thiam gëm sa bopp. 2024. diaspora bi yëpp nag fi toll nii dañoo taxaw. liñ doon tukkee ji tey si réewu tubaab yi moom nañ bëgg mu jeex takk parce que ñi fi nekk moomuñu réew mi ñun ak ñoom ñoo ko bokk. mais du ñu seddoo suuf si seddoo alal bi nit ñëpp taw nañ tey demal tay ba États-Unis sénégalais ya fa nekk vingt ans trente ans amuñu ay këyit wala am nañu ay këyit mais système Amérique boo leen tënk ba tey ñamewuñu ñëw fii te loolu mënoon nañ ko am fii te Afrique bi yëpp xaj nañu Amérique bëgg nañ si ñibbisi mais mënuñoo si mais loolu nañ bëgg mu jeex fii immigré yëpp nag diaspora bi ñëpp jóg nañ taxaw tey daas fanaanaw 2024 ñu fal Bougane ci bopp réew mi incha allahu rabbi loolu moom pare nañ ci Espagne immigré ya fa nekk lafa lañ fay def moo nekk fii bay bi ñun ñoo koy def feresa bi ñoo koy bay moora bi ñoo koy bay naranqa bi muy orange bi ñoo koy dagg mandarine bi ñoo koy dagg mais te loolu yëpp mun nañ ko am suñu réew te président Bougane weddi nag gis bokku si li mu def fii mu ne fàng ñu ñëpp gis nañ ko kon nañ ko jàppale te jeunesse bi yëpp nañ ko jàppale incha allahu rabbi États-Unis nag fépp Amérique Washington Atlanta Chicago Virginia Detroit California Hartford Connecticut Cincinnati everywhere in the United States bépp Sénégalais tey dinañ taxaw ñu fal suñu leader Bougane 2024 Ya ndeysaan ngay dari non dama juum ma ne Sen TV laa bëgg dafa jóg rek eh, Thierno waaw. kon boo ñëwee fii seet si nu ah dañ ci am kontaante lool. waaw ndax itam yëf yi def teel bàq ci la tey wax dëgg yàlla rajo bi démb de ñëpp a doon jooy moom. kooku ñuy wax euh, Abdoulaye Diop Bichri ah yàlla yàlla la billahi boga boga ni nga def nii yàlla dana la fay maam Cheikh Fall dana la ñaaxal ba yàlla la ko yàlla def kontaan nañu lool fii moom suma kër la euh, transporteur yi rawatina mécanicien yi waa Petersen je crois fii fu miin la kon su ma ñëwee fii jaadu ma romb fi te yegsi ba fii. dëgg la moo tax ma ne naa ñëw ziar la. sakku ci ñaan ci yéen. parce xam nañ ne bu ngeen ñu ñaanale bu ngeen ci dogal suñu borom def li ñuy ñaan mooy ngeen ñaanal réew mi mu amub dal. yéen suñu papa yi ñu ngi sakku ci yéen ngeen ñaanal réew mi mu amub tawféex amub taysiir lii daal sakku nañu ko ci yéen dénk nañu ko sëriñ kon ñu tàllal suñu loxo ngeen defal ñu Président, président, deux mots, deux mots. da ngay ñëw fii daaw jéeg c'est Matar Lam Gueye le coordinateur de parti Rewmi à Kër Moussa. on se connaît ñëw nga fii daaw jéeg fekk fi ñëpp nga ànd ak ñun bokk ak ñun suñu metti toog fii ba heure tagu jot nga dogandoo ak ñun. loolu vraiment ça nous a marqué au fond du nga déplacé wu fii ñëw fekk ma jandeer man fa ma dëkk à Kër Sega même toog population toog wër la nga wax foo wax boo xamante ni. jusqu'à présent heure bu ma la gisee loolu laa gis sa man bokkuma gëm sa bopp gëm sa bopp bokkuma faneen je suis de encore une fois je suis le coordonnateur à Kër Moussa mais mais par principe dama laa bëgg a wax ni la encore une fois Sénégal fii ñu nekk nii amul kenn ku la gën a mérité pour diriger le pays ça il faut le dire tàcc man man man ça même à connaissance de cause tout ce que vous êtes en train de faire au niveau national pour le pays ñëpp dañ cee war a teg seen loxo jàppale la pousse ko man loolu laa gëm. yaa ngi dégg loolu aussi c'est un témoin boo xamante ne bii boo ñëwee fi ba dellu te defuma ko man jàpp naa duma ko ñëw nga fii bokk ak ñun suñu naxar ànd ak ñun dogoon ak ñun ñëw nga ca continuer sa fa en tout cas Sénégal yi kenn appu la ci responsabilité pour tàllal seen ay loxo pour que ñu yóbbu ko pare président boo gënee ci réew mi nag boo gënee ci réew mi yàlla ko yàlla def amiin jërëjëf merci même gars jafe-jafe yi bu ñu bu ñuy wax waxu transport. bu dee souvent wax transport. faaw ñu ñu ñëw ziar si leen xool jafe-jafe yi ngeen di jànkonte lii rek mooy suñu fii sant nañu baax rek nag jërëjëf jërëjëf